waaye gis nga en du lorke ke nga ayir foo gis kuy dund en rek moom la en nga di lor moom lay détruire ñun ñu ngi sant yàlla ñaareelu santiment boo xam ne Macky Sall koy dund te mu nar a àndil Sénégal jafe-jafe yu rëy mooy li tubaab di wax orgueil mooy rëy dem ba xam ni mbir mi jeex na waaye ñëg jàpp la nga jàpp ni boo tegee mbiri ci suuf doxal jàmm dalal réew mi day mel ni dañ dangaa feeb ci kanamu nit ñi moom noonu la ko jàppee rëy muy ñaareel bi ñetteel bi mooy ragal ragal lan mooy xew gannaaw bu jógee fii te li ko andi yépp mooy ni mu ñor yore réew mi ci fukki fan ak ñaari weesu ñu jox lam réew ne doxalal yoon doxalal dëgg nga jël ànd ceeg coxar goo xam ne ñëpp seede nañ di fitnaal Sénégal yi dal ci kaw Sénégal yi di gaañ Sénégal yi di tëj senegal yi ku ne ànduma ak yow nga faagaagal te fàtte ni nguur dafa am bakkan te yàllaa koy joxe tey war ngaa jóge ci nguur gi nelawatoo lekkatoo jàpp ni mun nga imposer Sénégal yi kan moo la war a remplacer lii lépp mënoon na ko moytu waaye ànd ak lii lépp nag nun dañoo waxoon ni lu may wax keroog ci France ka dafa ne ñun mën nañoo baale te baale nañu lépp loo lu waay def teg ko si teg ko si suñu kaw ñun personnellement baale nañ ko ndax nun dañoo am roy ay royukaay te bi ci jiitu te am solo mooy yonent bi nga xam ne moom lañu gëm ñun nit def na ko lu ne nit fay na nit pour ñu rey najaayam di Hamza xotti dënn bi génne xëtër bi jox ko ko mu mu koy yëy nii moom mu teg ci bëtam loolu lan moo ko gën a métti te keroog bi mu gañee ba ubbi Makka dafa ne baal naa kooku ak jabaram Abu Sufyaan ak Hindi baal naa leen waaye yemuma ci baal leen sax waaye ku dugg seen kër sax làqu fa jéggal nañ la parce que dafa am fu nit di toll ci histoire da ngay def preuve de dépassement bu xeex jotee ñu bëgg ñoo faagaagal kenn dàq ñoo xeex waaye bu ñu yàlla dénkoon réew mi Sénégalais yi am na leneen lu ñuy xaar ci ñun lu dul ay fayante mooy naka lañuy def ba seeni problème yi ñuy dund ci paj mi ci xëyu ndaw ñi ci ci ci ci coono jigéen ñi ci Euh, njàng mi ci tali yi ci courant bi ci dund gu seer gi ci xale yi jël gaal di dem naka la ñuy def ba ut ay pexe ci loolu loolu la Sénégalais yi di xaar ci ku ñu fal erreur yi mu def moom ñun duñ ko def mooy ñu fal la bi nga toogee premier mandat salaamaaleykum waaleykum salaam yaa ngi xalaat troisième mandat ba tax nga ne ku yëngatu rek ma faagaagal ñun du ñu def erreur yooyu kon baale nañu bu ko neexee mu gëm bu ko neexee mu bañ a gëm ndax ñoom li ñuy def ñoom seeni politiciens classiques yooyu di naxanteeg ñu naan naxal ba jekku bu ko defee nga def li le la les promesses d'engagement que kii kii qui ñun du ñu xeetu nit kooku ñun jombale nañ suñu bopp wax loo xam ne Sénégal yëpp dégg nañu àdduna yëpp dégg nañu ñu ñëwaat di def safaan wax amul lu ko jar ci àdduna waaye baale googu dañ ko tënkoon ci àpp ki ngay baal ci kaw mu tuub ci kaw mu tuub te bokk na ci sàrtu tuub gannaaw boo rëccoo li nga def rëcc ko bokk na ci ay sàrtu tuub mooy nga bàyyi ko bés bi bi nga ko tuubee nga bàyyi ko définitivement waaye bu dee moom dafa fas yéene juróom ñaari weer yi ko desee ci réew mi mu ne lii kàttanam yépp da koy jël pour faagagal Ousmane Sonko essayé xol nu mu koy dugalee kaso essayé xool nu mu koy tere nekk candidat wallahi maa ngi koy waat fii ma toog nii ci àjjuma ji lañu ñu dese ci dund ñun du mbirum benn fan du mbirum une semaine du mbirum cinq ans la ci dund dinañ ko jëriñoo dinañ ko jëfandikoo ñun ak ñi ànd ak ñun ñépp nag ba teg ko lu toll ni lim ñu teg wala lu ko raw parce que yaram benn la foo domp mu metti dañuy wax ni nit balaa ngay xam lu jaadoog lu jaaduwut laajal sa bopp benn laaj mooy lii ma bëgg a teg kële est-ce que su ma ko tegoon dina neex ci man tant que nit yeggoo foofu rek lu neex defal te foofu la Macky Sall nekkoon malheureusement onze ans yi weesu jàpp na ni moom ak njabootam ñoo gën luy dund ci senegal mun na teg nit ñi lu ko neex ba pare moom mu nekk ci gun naa daa loolu mënul nekk géej naa ko fi ma toll nii bu deltuwul gannaaw xam ni li mu bëgg munut ne man mënumaa faagaagal ndax man sama carrière politique c'est intact réewum Sénégal kenn mënul wax ëllëgu réewum Sénégal te te génne ci Ousmane Sonko ak Pastef loolu mënul ne moom nag carrière politique am weesu na ab page bu ñu tourné la kon na delloo si xelam noonu ma ko waxee ci moom laa koy waxee ci ñeneen ak ñeneen te dinaa ci ñëw dama leen ne Macky Sall bàyyiwul liy firnde ni bàyyiwul gis ngeen nomination yi mu def barki démb ci magistrature bi Cissé Fall Cissé Fall mi nga xam ne moo dem cour d'appel ñu sas ko moom ne ko fexeel ba condamné Ousmane Sonko lu ëpp ñetti weer mu dem bind ay fen yu leer nañ ngeen jéggal ma ci kàddu gi ci décision bi dem ba ne samay avocat ña nga woon ci salle ba Juan Branco mi nga xam ne mu nga Paris nee na ma nga woon ca salle ba ak yeneen ak yeneen jël na ko léegi moom la yóbbu def ko président tribunal grande instance de Dakar am na lu muy waajal ci fan yi ma teel leen ko yëgal nag am na lu ñuy waajal te gëm naa ni bu ñu paree examen xale yi ci loolu la jublu Ousmane Gueye mi nga xam ne moom lañ demoon jëli ci cabinet Victorine Ndeye faxas ko andi ko mu mottali Cissé Fall pour ñu mun a am majorité moom la ñu def léegi secrétaire général cour d'appel non seulement ay récompense la ba ci ndaw si sant ndaw mi nga xam ne beneen procès bi moom la ñu boole woon ak euh, Issa Ndiaye nga xam ne moom lañ ko booleel pour am majorité ñoom it moom it defal nañ ko promotion yóbbu cour d'appel ak ñi yóbbu cour de cassation pour préparer lii ñëw waaye dama leen yàgg wax leen problème mu Ousmane Sonko du problème mu justice néew ma gëw ma magistrat Sénégal de. am na ci ñu baax am na ci ñu jub am na ci ñu def seen liggéey te gëm naa ni bëri nañu lool waaye am na ci ñoo xam ne c'est des corrompus ndax corruption dafa bëri forme dem jël la jox la ay responsabilité ne la defal li ñu joxal la promotion loolu corruption la ak yeneen yoo xam ne làqu na ci suuf yoo xam ne mën na ci bañ a sori waaye sénégalais yi xam nañ ko procureur yi moom tuddatuma leen ñoo xam ne tey suñu appliqué woon yoon waratuñu woon nekk ci justice bi suñu problème du fajoo ci justice wax naa leen keroog ni fi mu toll nii thème bi je éligible mooy fi mu toll nii instant bi ñuy wax nii man candidat la ndax premier dossier bi donte corrompre nañu ay juge ba ñu wax li ñu wax samay avocat nee nañ dañuy dem cour de cassation ma bàyyi la def seen liggéey def nañu seen mémoire boo xam ne cent vingt huit pages wala cent trente bañ ko def par dama jël ay samay naataango yoo xam ne ay magistrat dañ mën leen xool leen bañ ko xoolee par dañ ne gisuñu fan la cour de cassation mën a jaar ba du kase lii ndax ay vices de procédure yi ci nekk waxuma la sax leneen lu ñuy tudd waaye yéen xam ngeen li xew ci justice cour de cassation bu ñu commencé ñoom ba léegi da ngay am dossier béton ba ñëpp ne dossier bi gisuñu fu ñuy jaar seen yoon newu ci bu mag Sall jaar ak ñoom fu muy jaar ak ñëw wax lu leen neex waaye candidat laa ci dossier boobu ba tey ndax dossier bi jeexagul boo demee ci premier dossier bi booboo gën a neexati ndax nee nañ dañoo condamné par contimence contumace nag mooy saa su ma jógee man ne maa ngi nii jugement boobu anéantir na jeex na ñoom bu ñëwoon jël si ma tey jugement boobu anéantir na waaye nag